dafa am benn kat bu doon jàngale ci école bi benn bés am benn élève boo xam ne dañoo sàcc montoram jàngalekat bi daal dina élève yéen ñëpp jóg leen euh, tafu ci miir bi na ku nekk joxe ginnaaw ñu joxe ginnaaw mu ne leen na ku nekk gëmm ay bëtam ñoom ñëpp ñu daal di gëmm mu daal di leen palpe ñoom ñëpp ba génnee montre bi mu daal di koy jox ka ko moom waaye mu noppi 35 ans après ci la dajeeg waa ju am xaalis waji nak nag di gis paa bi paa bi na legi mu ñëw ba ci mom mu ne ko señ bi mu ne ko waaw mu ne ko xamé nga ma mu ne ko deet mu ne ko man sa élève la won sa dong la won benni bëss dama mu ne ko benni bëss dama saccio nak montre bi saccé montre bi yow nga daanee dong yépp na nu gëm nga génné ko sama pos. waaye bengku ginne ko génné dang ma sutural waxo dong yi dama ko sacc xam nga lu ko sëriñ bi wax mu ne ko dafa am loo ci xamul lan ci xamul mooy ba ma waxee donga yëpp ne nañu gëmm man it damaa takkaale samay bët xawuma sax ci poosu kan laa ko génnee allahu kon lii yóbbal la ngeer ñeen ñu ñun ñëpp jamono ji xaw yi sutura bi mu ngi bari fexe nañ ba buumu kers ak worma bi doxoon ci diggante jàngalekat ak jàngkat dog na ngir